wa ashaabihi altayibiin altaahiriin wa ridallahi alxaalid an jami almuminin ayuha alixwa alkiram assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokk jullit yi fi teew góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi jël sunuy loxo boole ko sunu xol jël li nga xam ne moo gën ci nuyoo te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ko jox waaye dafa mel ni da naa xiif de tukulóor yi dama yaakaar ni koor gi leen jàpp ah imam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen baal ma nag nuyoo yi du gudd gannaaw bi ñu nuyoo ki nga xam ne tey mooy kilifa jataay bi ci diine ji muy Serigne Mouhamadil Moustapha Samb di sunu mag di sunu xarit du lépp ci ñun nuyu sunu mbokk sunu xarit sunu lépp muy oustaz Khadim Ndiaye li mu wax léegi noonu la ñuy tëddee amul leneen lu ma ciy teg ndax dama bokk ci ñi gëm ni ay doomi soxna suñu dajee xëccoo am fa rek la wax du dëgg ci ñoom te nag dafa jot doomi soxna yi boroom xam-xam yi suñu dajee kenn bu waxee mën a yóbbaale ñeneen ñi ci des te damay faral di wax nii xool nga netti li wax bu jàmbur jarul kaalaw netti li waxu jàmbur oustaz jarul ngay kaalaw te lépp luñ fi wax rek waxu jàmbur la ndax ñi fi jaar ñépp wax nañ ko kon amatul lenn lu ñu wax lu dul loo xam ne ñi fi jaaroon ñoo ko wax kon ñu ngi koy nuyu moom xaadim di nuyu sunu rakk sunu xarit sunu mbokk oustaz al imam Babacar Fall di ko ñaanal tawfiq ndax bés bu nekk léeg-léeg damay absente sax ndax xam ne moom Moustapha ñoo bokk mbir su ma gisee rek ci sàppe si dafay bëgg a dellu ginnaaw puus ma te man bokk na ci li ma gën a ragal mooy jiite moo tax bu ma gisee ñiy jiite di di xëccoo ak njiit man leen seen yaram neexul ndax bu ma ne allahu akbar ñi ne sama gannaaw damay wax ne man ñi ne ci sama gannaaw ñépp am na ci ay nitu yàlla ñoo xam ne ñoo tere yàlla nelaw am na ci ay boroom xam-xam ñoo xam ne ñoo ma gën a sell foofu kon bu ma taxawee ci seen kanam waaye yàlla maa ngi lay ñaan yàlla bu ma juumloo loolu moom lay def ci sama bopp kon jiite booy xëccoo ku nekk ku yebu yërëm la gannaaw bi ma ñoo ñu nga xam ne nag ñoo samp yore diine ji fii ma ñëw ci ñi nga xam ne bu doonee ci wàllu àddina ñi ko fi jiite mooy monsieur le maire te mooy sunu rakk sunu mbokk sunu xarit muy ma jóob jóob xam nga li jenn wax léegi ci maire buy dem daayira parce que daayira boobu maire bi daf ko dab ki nga xam ne nag fonction bi dala dab du tax la nga doon def nga bàyyi ko naka noonu la nuyu suñu mbokk suñu xarit aadama Faye li valable ci ma jóom moo valable ci aadama Faye ndax toog julli ba pare tàllal malaan mi di wasifa wala ngay xadara ñoom ci la lu ñuy dox fa tabarakallahu yal yàlla jàppale leen waaw nee na moom mu ngi koy xëccal boppam quoi <laughs> di nuyu sunu frère sunu rakk muy Abdoulaye biyaay moom sama rakk la sama xarit la sama lépp la kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñooy sama frère yi ma àndal Mouhamad Ba mu ngi nii sama gannaaw ñeneen ñi dañoo tukki waaye nuyu sama rakk musaa Diallo nga xam ne këram laa nekk waaye sama rakk la sama xarit la macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu. oustaz al imam Abdou Ciss moom it mu ngi ci mbooloo mi ñu ngi koy nuyu di ko ziar man nag dama amoon lu ma doon ñaan association bi imam Dia ñu ngi lay nuyu bu baax dafa am loo xam ne daf ma métti trop maa ngi doon jéem a sax contacter yenn télévision yi pour ñu invité ma ma démentir loolu waa jooju wax te mooy Ahmed Khalifa Niass bu fekkee may ngeen ma ko rek ci juróomi minute bu fekkee mbooloo mi may nañ ma ko Seex Xaadim bala may dugg ci tem bi thème bi du yàgg dinaa ko mën a def ci 40 minutes dafa wax ci benn télévision loo xam ne man fi mu ne nii fu ma dajateeg mbooloo danaa ci wax lu tax mooy ci dafa wax ci diine ji wax loo xam ni benn nopp sénégalais mosu ko dégg ci wàllu sëy te bu ma juumul defe naa ne ku ko déglu fii bariwul ku déggul waxam boobu te mooy dafa wax ni xale bu góor mooy mariage TikTok maanaam maag benn xale bu jigéen bu ngeen dajee ci benn car rapide ma kobos ko mu kobos ma ñu waxtaan ci biir car rapide bi mariage bi mën nañ koo consommer ndax kilifteef amu ci du ci sart du ci ponk ma ne loolu mu wax du dëgg tey du dëgg suba du ko doon gannaaw ëllëg benn boroom xam-xam waxu boo doon natt njiir yi nga xam ne moom la ñu xam mooy Malik Ahmad ibnu Ambal imam Shafii ak eh, imam Malik ñoom ñëpp ak Abu Hanifata ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne loolu farata la ci du dugg ci détail bu baax téere yi nga xam ne moom lañ gën a fonk te maamam moom la jàng maam Abdoulaye Niass papa moom la jàng te mooy fiqul maliki risaala muqaddima eh, al akhdari xalil lawal saani ñoom ñépp li ñu wax ci tënk dañu wax ne sëy monta valable monta baax feek ñeenti dajewul al aqidaani mooy ñaar ñu bëggante al waliyu mooy kilifteef gi al sadaax mooy canli asiixa mooy waxante bi loolu bu amul sëy bi mënula wér ndax seyduna muhammad moo wax ne laa nikaaxa ilaa bi waliyin wa wa saayiday addilin neena na sëy mënta am bu amul kilifteef ak ñaari témoin ñu xam ne dañu maandu boo demee ci risala loolu nga fay fekk boo demee ci xalil mat na ba lool la ci wax waliyun sadaqun mahalun wasiixa boo demee tamit ci al fiqhu al islaami wa adilaatuhu loolu la wax boo demee ci al fiqhu al maliki bi sawbi al jadid loolu la wax boo demee ci ibnul qudaama al hanbali ci al mughni loolu la wax moom dafa wax ni bépp sëy bu ñu takk te amul kilifteef baatil la seyduna muhammad moo ko wax boobu benn la ci li mu wax ñaareel bi mu ne képp ku mayee sëy ci biir jàkka dafa xaram ma ne ko kon de sëy yi ñu fi mës a takk ci senegal yépp benn baaxu ci ndax bu doon téeméer juróom-ñetti fukki ak juróom-ñeenti yépp ci jàkka lañ ko maye te boo demee ci eh, lajnatul daaima bu arabu saoudite nga xam ne ay boroom xam-xam ñoo fa nekk dañ leen laaj laaj bi waaye laj na boo xam ne ña ca nekk bon baas ci la bokkoon Cheikh Ousaymin ci la bokk Abdul Rahman al Afifi ci la bokk ñoom ñëpp laaj nañ leen laaj bi dañu wax ni loolu laa baasa baax na dem nañ ba wax ne sax defee ko ci jàkka sax sunna la kon loolu mbokk mi wax na ko beneen toj-toj bi mu waxati nee na doomu njaaloo dina donn doomu njaaloo dina donn rek sànni ko nit ñi xanaa nga leeral bokk doomu njaaloo du donn ki ñu ne moo ko jur yaayam lay donn yaayam lay donn waaye du am sañ-sañ donn ki ñu ko ne moo ko jur lenn la waroon a leeral ci yenn fuqahaa yi dañuy wax ni ki nga xam ne dafa am soxnam dem tukki soxna si ñu ëmbal am am doom moom bu ñibbisee te noppi ci doom jooju waxu ci dara doom jooju dana donn papam waaye bu ci waxee rek dootu ko donn kon yii nag mbokk moom wax ko te mu ngi def ye xale yi loolu xale bu ko dégg rek commencé xale bu jigéen nga mari di tali loolu nag moom vraiment daf ma daf ma métti trop moo tax occasion bu ma am mbooloo nekk fa rek fokk ma am lu ma ci wax rek ngeen baal ma àq baal ngeen ma ko de waaw kay bu ko defee nag thème bi xam naa ni ma ko bëggeewoon sax du mën a nekk ndax temps bi mayewu ko te itamit wax ji jaruloon di sax guddal ndax imam mi nga xam ne ci association bi la bokk gannaaw bi ñu ci Cheikh Khadim dugale maag imam Babacar Fall ak Moustapha ñu dugalaat ci Adama Faye ma lay ngeen dugal ko ci biir ci association bi la bokk gannaaw bi ñu ci dugalee maire ak ñoom Abdou Diop bu ñu ko temps bi may nii laa bëggoon a def li ñu tuddee anasirul baas maanaam thème bi ni ma ko bëggoon a traité temps bi bu ma ko mayee mooy d'abord bi ci njëkk mooy taarifu taawun ndax itamit conférence dafay am plan booy bi ci njëkk mooy taarifu taawun danaa ci taxaw tuuti ñaareel bi mooy ahamiyatu taawun maanaam taarifu taawun mooy dinaa wax lan mooy taawun ci lang arab ak lan mooy taawun ci islam ñaareel bi bugg na wax ahamiyatu taawun importance bi nekk ci taawun te mooy dimbalante wala jàppalante ah monsieur le maire jërëjëf jërëjëf jazakumullahu xayran ñetteelu point bi mooy anwaawu taawun maanaam xeet yi am ci dimbalante bëggu naa waxi tamit fawaayidu taawun njëriñ bi nekk ci dimbalante bëggu naa waxit aqwalul ulama aw xukama fi taawun du jël ñëpp mais borom xam-xam yi lan la ñu wax ci a taawun mooy dimbalante bëggu naa waxi tamit aqabaat fi taxqiqi taawun maanaam gàllankoor wala ndëgg sërëx yi nga xam ne mooy gàllankoor dimbalante ba ma koy tëjee nag bu ma ko temps bi maye mooy xasidatun fi taawun bu ma ko temps bi may incha allah noonu laa bëggoon a def plan bi ma bëgg a waxtaane taarif bi duma ci yàgg maanaam lan mooy dimbalante luxatan ñu ngi ko jëlee min al awn te mooy dimbal nit al awn te mooy tax boo waxoon ne istaana fulaanun fulaanan boo waxee ne diw dimbale na diw loolu mooy al istiaanatu loolu moom lay tekki ci wàllu làng te boobu nag daanaka jaruñu di ci sori beneen bi ci mooy a taawun lan lay tekki fi l istilaa aw fi sharia huwa al musaadatu ala al xaqi ibtiqaau ibtiqaa al rujrati min allahi te mooy dimbale nit wala nga dimbale mbooloo waaye la tax nga di ko def dang ciy seenu yàlla fay la loolu mooy taarif bi ci ataawu duma ci sori ndax conférence bi dama koy teg ci ay minutes kon loolu mooy taarif bi boo demee ci ku mel ni cheikh abdourahman bun nasir assaadi rahimahullah moom dafa wax ne al al istianatu wala al iaanatu hiya ityaanu bi kulli xaslatin min xisaali lxayr almamuur bi ficliha wal imtinaaw an kulli xaslatin min xisaali lcharri almamuur bi tarkiha moom bi mu indee taarif bi lan mooy dimbalante mu ne mooy lépp loo xam ne yiw la boo xam ne dañu digle jullit bi nit ki war ko def loolu mooy at taawun walla lépp loo xam ne dañu wax nit ki war ko bàyyi ñu fexe ba loola mu bàyyi ko def googu ñu koy def nee na loolu mooy attaawun kon loolu mooy définition bi nga xam ne moom la attaawun am man nag du ma animé du ma damay jàngale ngeen baal ma nag euh, sama principe la ndax la plupart sénégalais yi dañuy jàpp ne euh, conférence mooy animé man nag comme dañ may wax kon danaa leen wax point yi nga xam ne moom ngeen di tiire pour mën a gën a jëriñoo ci association bi kon wax naa leen ne lan mooy dimbalante mooy lépp loo xam ne dañ koy def jàppalante ci kenn ku nekk jàpp ci sa morom ngeen jàpp ci ba mën a def lu baax loolu mooy ataawun te du ngeen ci seenu nag lu dul payu borom bi subhaanahu wa loolu ngeen ci seenu loolu mooy at taawun léegi nag bu ñu demee ci importance bi te mooy ñetteelu tomb bi kon tomb bu njëkk bi oustaz mooy taarif bi wax naa ko mooy définition bi ci wàllu langue bi waaye ci langue sharia ci sharia ñaareelu point bi mu ngi noonu ñetteel bi mooy ahamiyatu taawul importance su dimbalante imam babacar al insan laa yastatiu an yaisha bi munfaridihi fa huwa daimun yaxtaaju ila gayrihi lisaada li yusaacidahu ala itmaami muxtalifi ahimmaatihi aw himmaatihi maanaam nit amul kenn ku mën a dund ci individualisme kenn ku nekk soxla nga ku la dimbale ak daraja ba mën a am xool nga danaa ci génne rek benn anecdote dafa am benn waay boo xam ni yàlla daf ko jox am-am ku xewle rek dafay toog rek yónnee fa xaalis toog di ko def di ko def ba benn bés mu am xew waa dëkk ba yëpp daje ñoom it kenn ku nekk nga jël benn enveloppe def ci xaalis yónnee ko rek jox ko waa ji ñëw toog moom mu jaaxle nag parce que gisul kenn lam fa lam def ci ay teraanga kan moo koy lekk mu génn di wax ñu ne ah comme da nga jàpparo jàppoon ni xaalis bi ngay joxe doy na sëkk pour nga am solidarité ak nit ñi kon xamoo li xew ca la commencé nag ku xew le parce que sénégalais bul jàpp mukk ne ki ñëw ci sa xew te indiwul dara jàppalewu la te loolu nag defoon na ci ñun sénégalais nga am xew gisuloo oustaz Ima Samb ñëw jox la enveloppe nga ne moom la ñëw na fa waaye su karam dem nañ ba ci dëj yi diw de ñëw na fi waaye jaaxal joxul joxul jaxal sallallahu alayhi wa sallam man damay laa jaxal cest à loolu mënoon nañ ko dugg rek ci cadre taawun dimbalante waaye buñ ko def waajib am na ñoo xam ne bu ñu amul dara daanaka dañuy làqutu bu ñu jaale ji loolu nag eh, Cheikh Khadim Babacar loolu war ngeen cee wax nag ngeen te it kasaalik kon yooyu lu ñu war a fexe loolu mu deñ rawatina nag sunu yaay yi toog jigéen ñi ñoom laa gën a yërëm xool nga ñoom seen ndawtal yi moom allahu akbar cinq mille ñaata la koo jox cinq mille de defe naa mille mille francs bu nekk da nga teg waaw loolu nag ki ko jox bu ko amul nag xool nga taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan digle la yàlla la nag alquran moo wax ni loolu foofu lay duggee nag ci ahamiya bi maanaam booy doon xool at taawun huwa asaasu nahdati fi lmujtamaat dimbalante mooy fondement développement walla modernisme ci société xool nga société boo gis mu dox am jàmm kenn sonnul dafa am lu ñu tudde ak taawun te mooy dimbalante coopération solidarité solidarité nag danaa ci ñëw benn bu ci nekk lan la xeetu solidarité yi am yàlla subhanahu wa taala dama leen di wax ni tegtalu importance su taawun minal kitaabi wa sunnati du may wax waxu yàlla la aaya bi ci jiitu bi ci njëkk audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan yàlla dafa wax ni na ngeen dimbalante na ngeen jàppalante birri ci yiw danaa ci ñëw birri boobu wa taqwa ak bàyyi sa borom xel sama sëriñ ba Cheikh Ahmed Tidiane si al daawul firé a taqwa ragal yàlla ragal yàlla daaw ko firé taqwa te mooy juboo ak sa borom mu ne na waaye rekk waay wala taawanu bu leen jàppalante mukk alal ismi wala udwaan te Seydi ji Malick dafa waxoon ne a taawun laa yakunu illa alal birri wa taqwa maanaam dimbalante mënu la nekk ci leneen lu dul mbaax ak ragal yàlla bés bu ñu demee ba taawun nekk alal ismi wal udwan nekkatul taawun waaye mu amara la mooy complot yàlla na ñu musal ci boobu boo demee ci tafsir al imam al qurtubi dafa wax ni wa taawunu ala al birri wa taqwa mu ne huwa amrun li jamii al xalqi bi taawun alal birri wa taqwa an yuina baadukum baada nee na aaya bi dafay digle ci mboolem ku yàlla bind di nit jullit nga wala doo jullit ngeen ànd di jàppalante ci lu baax te mooy kenn ku nekk mën a dimbale sa morom ci def lu baax waaye nag waa waamalu bihi ñuy jëfe nag wantahu amma naha allahu anhu ñuy def li yàlla digle bàyyi ay tereem sénégalais nag nañ ma baal li yàlla digle danañ ci def tuuti rek li yàlla tere moom dañu wax ne mënuñu ko xool nga yàlla dafa wax ne wattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla waaye xam nga dëgg-dëgg yàlla ragal yàlla nag yombul moo tax beneen aaya ñëw man suuxal aaya boobu mu ne wattaqu la mastataatum ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla aaya bi ñëw ne ragal leen yàlla seen kéemte laayu kàttan kon kenn ku nekk sa ragal yàlla am na foo ci mën a toll kon defal na nga ca tolloo keneen def na mu tolloo wax ak daal boo demee ci benn boroom xam-xam imaam Ibnul Qayyim rahimahullah bi mu ñëwee ci wa taawanu ala al birri wa taqwa moom dafa jël baatu al birru mu ne al birru boo ko doon natt mu ne yàlla dafa jël birru tënk ko ci benn aaya ci alquran te aaya bi yàlla wax ni laysal birru an tuwallu wujuhakum xibalal mashriqi wal maghribi walakin al birr man amana billahi muy benn wal yawmil aaxir muy ñaar wal malaayikata ñett wal kitaabi wa nabiyin wa aataal maala mu commencé di la limal nag danaa ci ñëw léegi kon aaya bi dafa wax ne mbaax nekkul ci rek ngay sëgg di sujjur sénégalais nag ñaa prépare oustaz bu ñu wax ne yé diw de ak am diine lan la jàpp ku mën a dem ca jàkk jala te nañu xam ne nag xool nga jàmm yàlla julli bokk na ci li gën a màgg nag julli waaye nag julli kese kese kese doxalul diine ji xool nga seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waay boo xam ne dafa mën a jaamu yàlla trop mu ngi ci jàkka ji suba ak ngoon ba waa quartier bi yépp naan chee oustaz imam Babacar Dia moom da ni mu mën a julle moo ne ci jàkka ji mooy jiite imam yi mooy jiite nangam ak nangam di wax rek bi mu paree yonent bi sallallahu alayhi ne ko waaw kooku kan moo koy jox mu lekk bismillah ñu ngi nuyu monsieur musa Fall mu ngi yegg si ànd ak Abdoulaye Ndiaye ak mbokk yi ma àndal ñu ngi lay wax bismillah ñu ngi lay nuyu bu baax xaju Moussa yonent bi daf waaw kooku noonu nga woon wax ci mën a julleem ci mën a naafilaam waaw kan moo ko xanaa moom du lekk ñu ne ko aha kay ñu laaj ko kan moo koy jox li muy lekk ñu ne ko diw moo ko koy jox yonent bi ne ko kookoo ko gën fuuf ndax non seulement dana ñëw ànd ak moom ci jàkk ji julli dem liggéeyi ba pare ñëw wëlbatiku di ko jox muy dund kon kookoo ko gën kon albirru bu ko natt rek ci mën a julli albirru bu ko natt rek ci mën a naafila albirru bu ko natt rek ci mën a génne azaka donte ci la bokk alquran bi ma wax ba mu commencé lay dem waaye dafa wax ne kin na mbaax daal boo ko doon wër mooy man amana billahi te mooy nga gëm sa borom loolu nag yombatul bari na ñoo xam ne xam nga lan mooy seen borom ah sénégalais génn wàllu sénégal yi léegi lan mooy seen borom ah seen bëgg-bëgg rek sénégalais bu amee xesee am bëgg-bëgg loolu moom lay jàmm boole ba muy sotti bëgg-bëgg moo xam pal la bëgg-bëgg ba moo xam ndomb la dana ko jaral lu ne kon ragal yàlla te am na loo xam ne dafa am phénomène la bu xew te mooy yàlla moom dañ ko jël teggi ko sunuy mbir teg ko ne jël ay nit samp fa sénégalais fi mu ne nii ku ci am lu baax dangay ngay gëm ne sa sëriñ moo la ñaanal moo tax nga am ko wala nga gëm ne sa liggéeyu ndey la donte ci la bokk waaye dangay jiital sa borom ba noppi doog a wax liggéeyu ndey sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum moo waxoon ne sénégalais mooy waay yoonu màkkaam dem tàggu élimaan bi tàggu nijaayam tàggu xaritam yi tàggu ay bàjjanam tàggu ñoom ñépp mu ne waaye yàlla bi muy bàyyi ci biir këram moom fàtte na ko ne na tàggu nga ñépp waaye yàlla mi nga xam ne booy dem moom ngay bàyyi sa kër mu di la tiye moo lay gunge ne na moom fàtte na ko te moom nga waroon a jiital ci tàggu gi kon mbaax mooy boobu mooy gëm sa borom gëm na amul dara lu mën a wàcc ci kaw asamaan lool la lu dul yàlla ànd ci mënoo am dara lu mën a baax jóge ci yàlla ñëw ci yow kenn mën la koo xañ amul boo amee tawhid boobu dara mënatul laa perturber waaye bu fekkee ne loo ñàkk nga ne ah wóoluma ci diw ndax keroog ba may génni xool na ma wóoluma ci diw ndax keroog ba may ba may dem dafa mel ni yéenewuma ko wax bokkañ Serigne Cheikh mooy wax ni ngeen baal ma nag man mooy sama référence ci lu ne nag mooy wax ni sénégalais moom ngay fekk mu añaane moroomu jullitam waaye iñaan nga du ci yem de day jóg fu mu gis ci borom reen ne daggal ma ci ndax diw fu mu gis boroomu sunguf ne compal ma ci ndax diw fu mu gis boroomi xaatim ne rëddal ma ci ndax diw mu ne diw moomu dina lekk sa dund ba mu jeex takk te dara nekku fi danga nga sa borom bu bàyyi lag sa bopp nga sonn nag kon loolu mooy gëm yàlla way yoomil aaxir bés bu mujj bi te mooy yoomal xiyaama xool nga bés boobu ku ci bàyyi xel am na loo xam ne doo ko ñeme xam nga damay wax ni nañ ma baal nag léeg-léeg dama koy faral di wax ci ñi nga xam ne ñooy def wàllu politik man lépp lu ma gis ci lu baax muy wàllu politik mu am danaa ko wax te mooy ñaari politiciens daje liñ doon gën di bari mooy kenn ku nekk da nga yàkkamti ñu jox la micro bi waaye ma dem ci benn daje fekk fa monsieur le maire ak aadama fay bi ci commune conférence Escale Urbam ñu ne kàddu gi ñu ne ah aadama fay na wax yóbbaale ma aadama fay bañ ne moom du ko def ñu forcé ko mu def ko ma kër ak ma jóob Adama mii moo ko yóbbaale bu doon monsieur Moussa Fall noonu lay demee loolu moo am solo ndax quartier bi yéen ko bokk beneen bi ci des mooy nga gëm wa malaaykat yi ba léegi ci mbaax la laa nekk de mbaax ci lool ci la bokk gëm malaayka yi malaayka yi nag boo ko gëmee mooy kenn ku nekk am na malaayka yoo àndal subaar ngoon loo def arrêté nañ ko te am na ñoo xam ne xam nga lu ñu seen métier dañooy filme comme ni caméraman bii di filmer am na ñoo xam ne dañuy enregistrer ay son ñii di photo buñ demee ba yomal xiyaamati buñ la waxee ne lii yaa ko wax nga ne noonoo du man ñu indi la photo yi nga ne noonu gars yi dañ ko dañ ko monte loolu yëpp nga wax ko ba noppi ñu ne kon xaaral ñu génneel la film bi nag tegal la boo xam bu boobaa nooy waxati beneen bi ci des mooy wal kitaab nga gëm nag téere yi yàlla wàcce alquran injil zabur ak yeneen téere yi gëm prophète yi yëpp koo xam ne yàlla moo la yónni da nga ko war a gëm léeg yépp ci mbaax la bokk waaye nag wa aatal maala ala hubbihi booy solidarité booy dimbale nit booy defal nit mbaax la nga koy jox na fekk nga am ci soxla waaye bala ngay saraxe sénégalais bala muy saraxe bu dee yére la bu dee yére day xool yére boo xam ne sol na ko ci koñ bi sol na ko ci koñ bi ba mu sàppi ba nga xam ne bu ko mayee bu ma ko mayee man oustaz bu ma génnee gaa yi xam ne lii yére bi dañ ko ko may parce que di ko ko may kon booy maye dangay maye li nga soxla booy dimbale nit te man ko nee na defal ko lu mën a faj soxla Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al dafa waxoon Serigne Abdou Aziz Al Amine ne ko ne na nit boo koy dimbale danga koy jox lu faj soxla moo tax macha allah comme képp ku gisoon nag moom bu jëflanteeg yow rek boo génnee nga tiit moom almaktum ah waay yal na ñu ko yàlla fayal yal na ñu ko yàlla fayal yal na ko yàlla fayal man ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax du tiitar nag moom ndax doy na sëkk barke yàlla dimbale la nga toog mu jël loxoom teg ko ci sa bopp bi ñaanal la loolu sant nañ ci yàlla ndax nijaayam lañ ma tuddee te moo ma yar waaye modèle la ci sénégalais bu mu doon li may wax Adama Faye bi ci la bokk <laughs> ci ñi nga xam ne sëriñ Cheikh la ñuy noyee ak ñoom imam Samb ñii ñee ñëpp moom lañuy noyee ndax xam-xamam moom la ñuy noyyee ndax simplicité am yàlla nañu ko yàlla fayal kon booy joxe na nga jox nit luy faj soxlaam waaye nag solidarité bi ngeen def nii kenn ku nekk la nga mën nga fexe ba jàpp ci danaa ci ñëw léegi ci kanam ndax damay bañ téye kàddu gi yëpp beneen bi ci des mooy wa aatal maala ala hubbihi sawil qurba xool nga joxe joxe booy joxe ñi la gën a jege ci ngay commencé ñi la gën a jege mooy papa ak yaay ay frère ay sœur ñoo ñoo la gën a jege moo tax sharia ci joxe ñoo ñooñu lañ wax ne moom nga war a jiital waaye bu fekkee nag joxe ñam yaa ngi koy commencé ci miskin yi alyatama wal masakin waaye bu fekkee ne joxe xaalis ci say parents ñi la gën a jege ngay njëkkee bu fekkee nag joxe lekk bu da nga commencé yatama wal masakin beneen bi ci des mooy wabnu sabil wasailin mooy yelwaankat yi moo tax ba ma déggee oustaz Maodo Faye sama xarit la wax ni baqara ba naa si gisul fi yàlla wax ne yelwaan leen <laughs> ma ne ko sëñ bi da ngaa juum rek waa la aaya alquran la di kon kiy laaj dafay yelwaan te nag Sénégal maanaam xoolal ñun ñëpp ay yelwaan <laughs> <laughs> dafa am yelwaan bu civilisé <laughs> aha dafa am yelwaan yu civilisé xam nga ñi doon jóge fii arab ma Sénégal di dem Makka dañuy umra ji dem ñu jox leen azaka ji ah xeetu yelwaan la di yelwaan la dañ du tudd baat bi rek mais yelwaan la de dañuy yelwaan ba noppi ñëw fii nag wëlbati ko ne dañuy saraxe donte aayul kon wasaa'iliina ak ñuy laaj nga fexe ba assiste leen wa fi riqaabi xam nga nag riqaab amatul xam nga li am mooy ki am problème ci justice te li ko waral muy xaalis bu fekkee ne caution la bu ñu laaj nga joxe ko kon kooku goreel nga ko ca la mu nekk parce que riqaab mooy du lenn lu dul koo xam ne sañatuloo bañ c'est-à-dire ñu ngi la téye mënatuloo dem fen kooku moomoo sa bopp amuloo c'est-à-dire amoo liberté sa bopp kon kooku boo ko dimbalee rek def nga ñuy tuddee riqaab bu ko defee nag mu ñëw doog a ñëw waa aqaama salaa nga boole ci nag di julli waaye nag wa atal maala bi mu ko waxee ba mu yegsi waa beneen bi wa atal zakat ngay joxe azaka maa ngi ko doon wax rek ci benn débat buñ doon def ci wàllu zakat ma ne leen problème pauvreté bi ñu wax ci Sénégal bu fekkoon ne organisé woon nañ li ñu tuddee zakat mu jeex ci Sénégal waaye malheureusement amul organisation ci Sénégal mais bu fekkoon ne dafa am benn commission boo xam ne dañ leen di jël ñoom ñuy liggéey ci wàllu zakat nga xam ne entreprise bu mu mënti doon milliardaire bu mu mënti doon millionnaire bu mu mënti doon danañu fexe ba jël say coordonnées ba at mi di jeex ñu ñëw wax la nga war a génne asaka ji xool nga loolu ñuy daje dajale ci ay millions nga fekk ay jeunes yoo xam ne am na ñu métier. waaye amuñu moyen pour mun a def seen métier nga financé leen mais loolu ñaatal nit nga mën a defar bëri na kon loolu xool nga Omar ibn Abdul Aziz bi mu organiser zakat demoon nañ ba ci biir dëkk ba boo doon génnee asaka doo xam ko koy jox dañu obligé yóbbu ko baytul maal te loolu nag lu war a mën a nekk la ci Sénégal <laughs> Serigne Babacar nee na fii moom ñi ñi amul dépense lañ koy jox. gan ñëw léegi. ci pare yi la bokk Mami Rama sama jigéen kon dañu wax ni ci ñi nga xam ne ñooy autorité ñu fi ñëw sunu diggéen Mami Rama mi toog nga xam ni waxtaan yi ñuy def fii te papan di ko def mbootaay googu moo ko jiite. nee na autorisation bi ñu am pour mun a def conférence bi moom mii moo leen taxaw fa tabaarakallaahu jigéen la bu am yitte kuy taxaw nag parce que moom ci loolu la yëngu yal na yàlla jàppale la ak ñi nga àndal ñëpp kon loolu mooy mbaax loolu yëpp ci la bokk wal muufuuna bi ahdihim isa ahado foofu nag problème am na fi maanaam ñi nga xam ne bu ñu joxee rendez-vous respecté ko <laughs> foofu nag am nañ fi problème bu rëy man de ci sama principe la man man sama principe boo ma waxee dix-huit heures dix ma fa fekk boo ma ne dinaa la seet si dix dinaa la xaar bu dix-huit heures tegee cinq minutes boo ñëwul ma dem su ma yoon te su ma dajewoon ak yow ci buntu kër gi du ma wëññeeku sama sëriñ si Ahmed Tidiane yi loolu la ma jàngal kon bokk na ci mbaax fonk rendez-vous dañ mën a yàq fonkuñ rendez-vous dara boo ko defee sax ñu ne diw dafa tubaabe boo fonkee rendez-vous ñu ne diw dafa tubaabe te yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñett la ñuy xamee naafeq ñett la ñuy xamee naafeq nottu leen ko nag ngeen bu baax ngeen déglu ñett yi ku ñu ko gis ci moom mën nañ leen naa fekk la bu ci jiitu mooy bu waxee wax lu dul dëgg ñaareel bi boo ko wooloo mu wor la ñetteel bi ñetteel bi bu la joxe rendez-vous faussé am na sax ñeenteel bu xuloog yow sosam la loolu xew ci penc mi wax lu du dëgg dafa mel ni dafa xew te Serigne Cheikh Tidiane Sy Al moo waxoon ni ne na li xam ne moo mën a tax toroonu yàlla bi yëngatu mu ne loolu lu garaaw la mën nga def lu nekk système bi yàlla tëral mooy mooy muy arche du yëngatu waaye nee na lenn kese mooy tax tronu yàlla bi yëngatu mooy mag muy fen yonent bi dañ ko wax ne ndax jullit dana dana sàcc mu ne waaw ak bon ñu ne ko ndax jullit dana naan mu ne ko waaw ak bon lu ñu ko wax rek mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana fen yonent bi ne jullit du fen xool nga jullit du fen boobu kenn ku nekk nang ci xool sa bopp beneen bi ci des mooy wassaabirina fi lbasaayi wa darraayi wa xiina albaas ulaika allazina sadaqu ulaika humul muttaquun te mooy nga bokk ci ñoo xam ne bu bu bu neexee bu muñee bu bu nga muñ bu neexee nga muñ sénégalais moom bu mettee mu saalib bu neexee mu beew sénégalais xam nga moo tax dañuy wax ne nit ki bala nga koy xam dëgg dëgg ñu xam ndax yàlla jox na ko am am xool nga nit bala nga koy xam mu am dara xam nga damay faral di wax ni azuhdu maanaam dëddu àddina dëddu àddina bari na ku ne dama dëddu àddina dëdduwoo àddina àddina moo la dëddu xool nga am na koo xam ne tey mu ngi naan dafa dëddu àddina bés bu ko yàlla joxoon ay milliards nga xam ne dëddu àddina àddina moo ko dëddu Cheikh Omarul Fuuti yu ci rimaax dafa wax ne dëddu àddina nekkul ci lekk lu naqari nekkul ci sol lu tilim wala bañ a tëdd fu baax ndax nag jullit moo fonk lislaam moo fonk set ku kullu min at-tayyibaati ma naa da danga war a lekk lu baax danga war a sol lu baax waaye da nga war a tëdd fu baax waaye nag liñ ci soxla mooy xol bi na fekk mu nga feneen waaye bu ko yaram bi bu ko bu ko yaram bi yëg moo tax may wax nii ñett mën na tax nit beew ngeen baal ma ñett mën na tax nit beew bi ci jiitu juddu mën na beewloo nit fii laa bokk ñaareel bi am-am mën na beewloo nit ñetteel bi taar mën na beewloo nit kon ñett yi yépp mën na beewloo nit ma ne nag ñetti yooyu xam-xam mën na beewloo nit ma ne leen nag ñetti yooyu yëpp wala ñeenti yooyu yëpp daje na ci sama sëriñ ba te bewul almaktum yàlla joxoon na ko taar kenn du ne déedéet yàlla joxoon na ko xam-xam kenn du ne déedéet naar ba daf ko xool ba mu yàgg mu ne ko anta muxul ilm mu ne ko yow xam-xam bu doon bopp yow yaay cerveau bi kon loolu yëpp bokkoon na ci beneen bi ci des mooy juddu kuy sa papa Serigne Babacar kuy sa yaay soxna astukan loolu juddu la beneen bi ci des mooy amoon na am-am ndax ndongo daara bu génnee lu mel ni sekosim moo tax Alaaji Mansour may nee na de ba ma recevoir ba ma génnee laa xam ne aw ma cardiaque nee na ba ma recevoir lan ma jox ba ma génnee laa xam ne aw ma crise cardiaque kon kon aaya boobu rek ci tënk mooy li ngeen di def ni mooy solidarité kenn ku nekk nga indi li nga man ak la keneen man bu defee ma ma ma amu ma tëb benn aaya boobu lay indi ci taawun ma indi nag xadis ci Seyduna Muhammad Seyduna Muhammad moo wax ni al muminu lil mumini kal bunyan yasudu baaduhu baada nee na jullit ki gëm yàlla ak moromu ki gëm ni moom yàlla dañuy mel ni bâtiment xool nga miir bii li tax nga mën a am bâtiment birig bu nekk da nangu supporter sa moroomu birig ciment bi ñëw dox sa diggante miir bi taxaw solidarité nag loolu la waaye bu fekkee ne solidarité bi jàppal ma jàpp du noonu ngeen ko tuddee <laughs> xaw ma fu ngeen jëlee kii bi de waaye yéeme na de te boo demee ci image yi def solidarité dessin yëpp noonu lay mel ki jàpp fii kii jàpp fii jàpp fii loolu mooy a taawun cercle moo tax même daaira yi loolu laa doon wax ma ne daa daaira yi cercle la cercle nag boo génnee rek dootu nekk cercle demi cercle lay doon kon li muy tekki mooy daayira kenn ku nekk dangay jàpp sa morom solidarité kenn ku nekk dangay fexe jàpp sa morom wa taawanu alal birri wa taqwa beneen bi ci des yonent bi jàngale solidarité ci hadis bu mu wax ni mathalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masali jasadil iza istaka minhu aduwun daa lahu saayiril jasadi bi saxari wal humma yonent bi dafa jàngale solidarité nee na mu ngi mel ni jëmm nit maanaam jullit yi ni war a mel ci bëggante te loolu mu ngi commencé ruus mbokk yi sénégalais yi nit ñu añaanante léegi dangay laaj lu xew dama ne ñoom Seydi Hadji Malick moom borom Touba bu ñu dellu si waatoon boo watu danañu gëlëm de danañu laaj senegaal bi ñu nekk ban Sénégal la maanaam sénégalais attan nga sa moroom ñu teral la ko nga rendi ko moo tax sama sëriñ ba nee na bala ngay gëm ne reyoon nit mu ne xaaral boo dem yowmal qiyaamati yàlla atte la bu ne la reyoo nit nga doog a gëm ne reyoo nit xam nga rey nit du teg paaka ci puut bi rendi ko de xool nga am na kàddu boo jëmale ci nit rey nga ko histoire bind ko réewatina nag léegi li xew mooy googal réseaux sociaux yi lu nekk lañuy ci génne Sénégal réew mu naq naqade waxal la oustaz wax naa ko ci suñ jumaa ja bés ma ne leen sénégalais moom ngay taxaw ci minbar di wax boo waxee mbaaxu ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci réew mi boo génne ñu sànn lay taraak ne moom ci gaay la bokk mais doo comprendre te kat xanaa nit mënoo wax ne nit ku mënti doon am na lu baax loo def wala nga taaxu ci ko bar wax ci opposition nangam ñu ne ax ah moom ci opposition la bokk mais ñaar fokk mu am mais mënta ñàkk c'est-à-dire il faut mu am koo xam ne fii la bokk waaye im koo mu am foo xam ne feneen la bokk xool nga opposition ak pouvoir lu lenn lu dul ñii ñoom jàpp nañ ne ñoo fi nekk mais nañ leen bàyyi ñu gouverner ñeneen ñi ñoom jàpp nañ ne dañ ñii ñii ay cuune lañ ñoom nañ fexe ba ñëw ci pouvoir bi jeex na kenn ku nekk nag am nga raison booy teg waaye lenn li ci am solo mooy nañ ko def débat d'idée sa programme nan la indil xam-xam ñu waxtaan ci waxakada waaye boo ko defee ci jàkka ji boo génne ñu ne ah kii de diw la àndal boo génnee ñu ne la diw àndal waaye mais fokk nga am ko c'est-à-dire ànduloog nit mais principe ngay àndal ngeen baal ma nag boobu parenthèse la woon rek kon yërmante bi mu ne dañu war a mel ni benn jëmm maanaam bëggante dañu war a mel ni benn jëmm yërmante dañu war a mel ni benn jëmm ñewendante bi war a dox suñu diggante dañ war a mel ni benn jëmm xool nga sa yaram wii sa nopp suy metti fan nga koy yëgee <laughs> ah, yaram wuy métti fan ngay yëg ne mooy métti xoolal li ko xoolal xam nga tey bu la dara dara gaañoon ci tànk fi nga koy njëkk yég mooy fii mu càqaar la et pourtant fii gaañuwul de waaye daay solidarité ci suuf kon yaramu doomu aadama ni mu mel yonent bi ne na ay jullit ñu gëm yàlla noonu lañ war a mel seen diggante lu dal sa morom rek jàppal ne moom la te nag alxuraan ni muy waxee da ngay jàpp ne nit mënta dund moom kese xoolal faatihatul kitab bi ngay jàng bés bu nekk dina siraatal mustaqim xam nga sunu sëriñ ba sëriñ bay abdu bés bu nekk mu def ci cax maanaam mu ne na am ku jóg jullil ma moom kese xam nga boo ko waxee taalibe bu mel ni man damay jóg rek kàbbar mu ne ko jàngal faatiha nga commencé bismillahi rahmaani rahim mu di la déglu rek alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu mu ne ko taxawal maanaam iyyaka na'budu da nga wax ne yow yàlla man ñun yow la ñuy jaamu mu ne la yàkkan te yow rek yaa taxaw di julli yaa kan iyyaka na'budu nga ne iyyaka wa iyyaka nasta'in mu ne ko yaa te loolu topp na ko ci faatiha bi bu mu jeex ihdina siraatal mustaqim xoolal bi ngay ñaan sax bi ngay ñaan danga ko def au pluriel maanaam groupe nga ko def ihdina siraatal mustaqim yàlla yàlla nag ñu saxal ci yoon bu jub ba yegg ci man xool nga ihdina siraatal mustaqim tekkiwul ne teg ma ci yoon wi ci alamaalul balaaxa dañu wax ne alif ak laam googu ci nekk li muy tekki mooy sabbit naa ala siraatil mustaqim maanaam saxal ñu ci yoon bi parce que mën nga tegu ci yoon bi ba mu yàgg nga jàdd kon loolu lay tekki boo fa jógee ci solidarité boobu ci pour wax ne ne kenn waru doo dund moom kese nga ñëw ci booy taaya sooy taaya looy wax atayaatu lillahi azakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabi wa wa barakaatu loo ci teg assalaamu aleyna yal na jàmm nekk ci ñun yàkkan wa ala ibadillahi saalihin yàkkan xam nga lool li muy tekki mooy yow bi ngay julli du yow kese boo demee booy génn ci julli gi dangay wax ne assalaamu aleykum xoolal sañoo wax ne assalaamu aleyya fokk nga def ko au pluriel mooy assalaamu aleykum yal na yàlla defal leen jàmm ma wax ne nag ki nga bokkal sàppe ji ci jàkka nga julli ba noppi ne ko assalaamu aleykum jox ko loxo ne assalaamu aleykum fi jox ko loxo ñu génn ci biti am lu ko dal ñu ne sa loxoo nga ca kon la ngeen doon wax ci jàkka ji amul jeexit ci yéen kon solidarité lislaam jàngale na ko ci façon boobu moo tax yonent yi wax ne yaram daal nim mel nee na jullit yépp noonu lañ war a mel beneen bi ci des mooy ci solidarité bi ngeen def nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa wax ne xool nga li ngeen di def nii ku am problème ngeen dem assister ko Seyduna Muhammad moo wax ne man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyamati nee na képp ko xam ne nit dafa nekk ci jafe-jafe nga assister ko ba génnee ko ca nee na yawm alqiyamati yàlla yonent bi nee na yàlla dina fexe ba taxawu la yawm alqiyamati waaye yàlla na ñu yàlla boole ci ñoom mu ne waaye wa man yassara ala muassirin yassara allahu alayhi fi dunia wal axirati képp koo xam ne dafa nekkoon ci jafe-jafe nga fexe-fexe fa jafe-jafe jooja yomb ci moom yowmal qiyaamati yàlla dina fexe ba sey mbir yomb yowmal qiyaamati yàlla nañu ci yàlla boole mu ne nag wa man satara musliman satarahu llahu yowmal qiyaamati fi dunia wal axira yonent bi nee na képp koo xam ne da nga suturaal sa moromu jullit yàlla dinal suturaal yomal qiyamati waaye naka noonu tamit nag contraire bi la ku xawi sutura jaamur fii yomal qiyamati yàlla dina xawi sa sutura moo tax lu xew koo xamal dara bu ngeen meree rek nga dem ci réseaux sociaux wax ko lu mel ni xeme filmer ko dugal ko fa waaye yomal xiyaama ngi ñëw te Serigne Cheikh waxoon na ni amma yatasaaluuna nee na yàkkamti la rek mu ne ku bugg a xam ne xew xaaral ba fanaan bàmmeel nee na xam-xam pire nee mu ngi ci gannaaw bàmmeel ku dee xam li xew beneen bi ci des mu wax ne unsur axaaxa zaliman zaliman aw mazluman dimbaleel sa mbokk su tooñee suñ ko tooñee ñu ne waaw xam nañ ki tooñ ki ñu tooñ nuñ koy dimbalee waaye ki nga xam ne moo tooñ nag nu ko nañ koy dimbalee oustaz te mooy nga dem ci ci moom jàpp ci loxoom ne ko nag nekkoo ci dëgg waaye nag bu ko xas xam nga sénégalais mënul conseiller nit naa dem wax ko dëgg xool nga dañuy wax damay wax ne eh, wax du jëmm waaye dañ koy solal yére c'est-à-dire xam nga nit xool nga Serigne Cheikh Tidiane dafa doon wax ni benn waay moo doon wax ni Serigne Cheikh nee na même buy xuloog yow nee na dina xuloog yow xuloo bu neex te fekk rey na la ci xuloo bi waaye day wodd wax ji loolu nag jullit bu nekk na ci war di bàyyi xel oustaz ma régime ma doon wax ndax malheureusement temps bi tënk nañu léegi ma résumé rek lu gàtt ci xeet yi am ci wàllu dimbalante ngeen noté ko taawun buñ koy wax ay xeet la bi ci jiitu mooy at taawun ijtimaay maanaam dimbalante social xam nga loolu niñ koy niñ ciy jàng mooy Seyduna Muhammad action bi mu njëkk a def bi mu demee Madinatu Munawwara loolu mooy solidarité sociale te mooy al muaqaatu bayna na muhajirina am ansar fexe bo euh, ñi gàddaay ak ñi leen teeru mu fexe ba mbokkoo leen nga gis ko am ñaari soxna nga bàyyi benn mu muhaajir bi nga jël jox ko ko nga am ñaari kër jël kër gi jox keneen ki beneen kër gi loolu moom la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk a def kon boobu nañ ci nañ ci bàyyi xel ñaareel bi te loolu aaya bi koy wax mooy in innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum alquran moo wax ne jullit ñi gëm yàlla ñëpp ay mbokk lañ ndax innamaa ci lang arab xasra la maanaam ñi nga xam ne ñoo bokk gëm yàlla ñoom ñépp ay mbokk lañ yàlla ñu si yàlla boole ci ñooñu dem na ci solidarité wal muminuuna wal muminaat aw awliyaw baad ñi gëm yàlla day góor ak ñi gëm yàlla ciy jigéen ñii dañuy war a jàppale ñële ñii jàppale ñii seyduna muhammad dem na ci solidarité wax ni quartier bi bu amee kenn ku fi fanaane xiif te waa kër quartier bi am ki ko ci xam te dimbalewu ko waa quartier bi yépp lañuy bindal bàkkaar karce bi mu am ku fanaan ak xiif te am ku ko xam te assisté wu ko assisté wu ko dañu wax ne yàlla du bindal waajale rek bàkkaar de quartier bi yépp la ñuy bindal bàkkaar kon boobu ñaareelu mooy premier point ñaareelu point bii mooy a taawunu ilmi te mooy solidarité scientifique wala coopération scientifique loolu li muy tekki mooy solidarité da war a war a am ci xam-xam xool nga oustaz Babacar Fall walla oustaz Cheikh Khadim Ndiaye wala oustaz Moustapha Samb amuñ kenn ci ñoom ku ñu sañ laaj masala nga bañ ko wax solidarité la ndax yonent bi wax ni képp ku ñu laaj masala xam-xam nga bañ a wax masala ma yomal xiyaamati xam nga li ñu tuddee laab maanaam loolu ñuy def ci bëñ ci gémmiñu fas yi yonent bi nee na yomal xiyaamati lu mel noonu la yàlla jël tàngal ko bu def ko safara def ko ci sa gémmiñ waaw man suila an ilmin yaalamu fa katamahu aljamahu llahu yowma alqiyamati bi lu jamin min annaar ibnu maaja beneen bi ci des mooy ñetteel bi mooy a taawun siyaasi solidarité politique wala coopération politique xool nga li koy wane mooy kullukum raa wa kullukum masul an raiyatihi kenn ku nekk responsable nga te li nga nekk responsable de la ko laaj yowmal qiyamati kon boobu mooy ñetteel bi ngeen baal man damay am na ñu ma ciy tëb sax am nañu tuddee euh, taawun difaa yi mooy solidarité boo xam ne défense la te mooy bu amee lu waroon a ñëw ci quartier bi jeunes yi fi nekk xam ne jaaduwul ñu taxaw parce que pa xam nga ñoom tonton Moustapha Samb yi doo leen génne ci ci ci mbedd mi ñuy jàmmarloog ñu ñuy attaqué xaar yàlla <laughs> kon loolu mooy taa taawun difaa'i loolu ñenteel bi wala juróomeel bi mooy taawunu axlaaqi maanaam solidarité éthique taawun axlaaqi loolu niñ koy dégge mooy man raa minkum munkaran fal yugayiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adaful iman maanaam mooy solidarité ci côté boobu mooy képp ku gis lu normalul ci quartier bi nang ko dindi ci sa loxo xool nga dañuy wax ne lépp lu normalu ci réew dindi ko ci loxo kooku état moo ko moom loolu état moo ko moom waaye wabi lisaanihi comme yow amoo pouvoir mën a dindi waaye am nga pouvoir mën a wax boroom xam-xam yépp ci lañu bokk bu fekkee ne mënoo ko nag amuloo pouvoir amuloo xam-xam ñetteel ba mooy wabi qalbihi nga xam ne lii de metti na ma trop waaye awma ci pexe nga naqarlu ko wa dalika adaful iman a taawunul jinaa yi mooy solidarité criminelle te mooy xam nga ci wàllu charia al islami boo demee fiqul islami dañu wax ni nit ku rey nit te teyu ko dafa am diya bu ñu ko war a jox bu ñu war a jox mbokk ki ñu rey waa ji nga xam ne moo rey amul moyen pour joxe ko ñu ne su boobaa nañ def solidarité su fekkee ne baytul maal am na fa baytul maal bi moo ko war a def bu ko baytul maal bi deful su boobaa ñu ne kon ñi nga xam ne ñoo nekk ca pénc ma nañu dajale jël loola jox ko waa ji pour ñu bañ ko rek loolu mooy a taawun a jinaa yi beneen bi ci ne mooy taawun al maanaam solidarité boo xam ne ci wàllu li ñu tuddee julle nit ku génne àddina maanaam dëj solidarité la te mooy ca ca sàng ba ca sàng ba ca jullee ba ca suul ba ca ñëw ci dëj bi ñaan dem ñibbi loolu mooy ataawun al ibaadi ataawun adabi maanaam dimbalante ci wàllu yar nga xam ne dañuy war a fexe bo maag yow ñu am lu ñu bokk bu nga xam ne bu ñu dajee maag xalifa ma mën ko jox bàyyi te mooy laa yuminu ahadukum xatta yuhiba li aqi maa yuhibu li nafsihi ngëm yàlla nit monta mat feeg li ma bëggal sama bopp ma bëggal ko xalifa bëggal ko xaadim bëggal ko mustafa Samb waaye man kese eh, al ananiyatu égoïsme musiba la kon bu ko defee eh, bi nga xam ne point yi ma noté woon mooy lan la boroom xam-xam yi wax ci solidarité ma cité ci ñaar rek indi yi mi waxoon te mooy Mahatma Gandhi ba nekkoon ca Inde ñu bari xam nañu ko solidarité ngeen baal ma dimbali nit ku xiif am na solo trop dafa am ay boroomi xam-xam def ay découverte dem ci bi eh, eh, fisé spécial yi dem ci kaw dellu siwaat commencé nag di def micro ku ñu gis rek laaj la waaw eh, li ñu def lan loo lan mooy ci sa xalaat dem ci weer beeg yooyu ñuy dem di dem ba dajeeg benn waay xam naa taalibe bu mel nii maam Babacar Fall la ñu ñëw tàllal ko micro bi ne ko yow lan nga xalaat ci li ñu def mu ne lan ngeen def mu ne dem nañ ci weer wi xool la fa nekk mu ne leen man dama xiif no wax ju rëy la dem ci weer beeg yooyu mu ne leen man dama xiif jàng bu rëy la te mooy ñoom ñu ngay dem ca weer wa te am na ñuy sonn fii te assiñte so jàppale wuñ leen mu ne leen man dama xiif moo tax maan ma gàndi wax ni mu ne at mu taawun ma acharri waajibun la yaqilu ahamiyatu an taawun ma al xayri maanaam ñàkka solidarité ci def lu bon tekkiwul ne doo def solidarité ci lu baax ndax nit mën nga solidarité ci nit kuy def lu ban ñu def solidarité boo génnee ko ci loolu waaye kii def solidarité ci loolu baax na ñëpp encouragé ko te mooy li nga xam ne moom la association bi def yàlla na yàlla jàppale la ma wax ne doomu aadama moom kese mënul mënalul boppam dara xool nga al jabalu laa yaxtaaju ila jabalin doj soxlawul doj walakin al insaan du yaxtaaju ila insaani waaye nit ci boppam moo soxla nit moo tax damay wax toujours ne nañuy bàyyi xel toujours suñuy diggante yi ndax kenn xamul boo génnee àddina kan moo lay sang jar na di bàyyi xel am beneen borom xam-xam lu wax ne laa xaw qawm isa taawanu maanaam ay nit feeg ñu ngi jàppalante duñ dañuy am kattan feeg ñu ngi jàppalante dañuy am kattan am na boroom xam-xam bu wax ni nee na même xob lu mu woyof woyof bu ñu koy yëkkati ñépp jàpp ko ci lay gën a woyof muy solidarité kon bu ko defee li ma noté woon bëri na awma temps pour mën ko développer yëpp ma wax ne naxlatun waaxida laa yajni la asal <laughs> benn yamb du defaral lem dégg nga li ma wax de <laughs> benn yamb du defaral lem groupe lay doon sànq def naa xaw ma xorondom xaw ma wat wer am na nu ko mag ñi di wax beneen bi des mooy xasiida bi ma jaar ci rek dafa am ñu sob rek damay wax ne ina taawuna bu ko defee oustaz bu ñu pare rek ñu gàgganti ma inna taawuna min sifaati alaaqili yarqa bihi nahwa alnajaahi kamaali huwa rawdatun mal'a bi xayrin waafiri itrun faakihatun dillun shaamilu inna taawuna lilcuquuli radifuha yas'aa biha نحو العطاء أمثل لولا تعاون بين أبناء الورى لم يبني مجد في الزمان الأول كلا ولا قامت حضارة دولة وناس عاشوا في النعيم أجمل انظر إلى النحل ضعيف بجسمه بتعاون يمسي كجيش هائل unzur ila namli daqiqi bi azmihi anaaluhu bi madaini wannawa wa manazili unzur ila aadai ljismi unzur ila aadai jismika lam takun lawlaahu lawla taawun fi ljisaami mudhili lawla albihaaru taawanat والشمس ما ظهر السحاب wa xayzuhu lam yahta lam yahtali lawla alxurufu taawanat ma baadiha ma kaana min qawlin wala min qaa'ilin lawla alxuyuutu taawanat fi xabkiha ma kaana min thawbin alayna musdali sirru alxayaati huwa altaawunu lam yakun lawlaahu min ruuxin biha mutashakkili fa taawanu fi kulli xayrin tuflihu iyaakum min raaqidin mutakaasili ahdaru min kulli shaxsin naafirin an jamcihi mustafsidi mutajahili duma am temps sax jaar ci xasida bi yëpp waaye li ma wax ci feewu xasida bi rek moom lay indi ñu noté ko dafa bokk ci maanaam bu nekkuloon dimbalante nee na kon àddina si tabax yi ci am yépp du exister wax ni bu dowuloon dimbalante mu ne xoolal yamb xoolal yamb ak ni mu tuutee waaye solidarité ci lay jaar ba mën a defar lem ñu mën ko jëriñu ñu ne xoolal xorondom xoolal xorondom nga xam ni xorondom mën nañu roñ saaku dugub te duñu sonn loolu leen ko may solidarité mën nañ fekk lu dee ñoom ñépp ñu jël di ko puus di ko puus ba mu dem ñu ne bu doo loon solidarité sa yaram ni muy fonctionner solidarité rek mooy tax mu mu demee noonu tànk bu xëyoon ne gereew biir ne sama yoon nekku ci wala loxo gereew ne dootuma tibb gémmiñ grève ne dootuma sex bañ grève ne dootuma sax mi bu yàggee xoolal loxo dootul jóg bët dootul xool nopp dootul dëgg ñu ne bu doonoon solidarité asamaan yi niir yi ciy jaar ba taw bi di wàjj solidarité moo ko waral ne nañ bu newuloon solidarité xaraf xaraf yi maanaam lettre yi bu ñu solidarité kenn dootul bind kenn dootul wax mu ne boo amuloon solidarité tissu yi ana ñoom Mbay Juuf solidarité bu amuloon wëñ ñi nangu benn bu ci nekk dend ak sa morom kon du ñu sol yére du ñu mën a génn kon nag sirul xayaati secret dund yëpp huwa taawun yàlla ñu ci yàlla defal tawfiq yàlla ñu yàlla defal jàmm loolu laa waxoon ne bu ma ñëwee rek naa ko baaxee fàttali ko ñi fàtte lépp lu ci baax ñu sante ko yàlla lu ci juum ngeen xam ne taalibe moo toog ci kanam ay sëriñam doon tëri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Senclic yéen ñi abonné gul gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko